parfois damay seetaan sama copain moo la muy laaj benn question naan Sénégal yi la moo tax jóguñu Ousmane Sonko de ko waxoon lii du ko gëm te billaahi ko waxoon Ousmane Sonko du ko gëm ndax Ousmane Sonko ba mu naan bu ñu ma jàppee huit heures dix heures Macky Sall sax ñu ko gënoon billaahi il comptait sur le peuple mais le peuple l'a trahi waaye question boobu ñuy pose naan lu tax Sénégal yi jóguñu du ay xërëm du ay Lac de dañoo sonn loolu olof naan daxal mu ma ngay naan kookoo mar di bëgg a dee génn ñoom ñëpp def ay vidéo influenceurs yi rek tu vois loolu da leen jarul rek Ousmane da leen jarul te Ousmane Sonko lii la leen doon la flambée des prix c'est partout gerte caaf benn cent franc ouverture kaye ñi ngi bëgg dee fourniture yi mais les sénégalais meurent mais ñoom ñoom ñoo toog croiser les bras c'est Ousmane Sonko te pourtant lii la leen doon kaasal di leen bëgg a rey nekk seen dëkk tamit connexion bi da dugal fat mu jeex sénégalais ci lépp la sonnee wekki bëñ fay courant